assalamu alaikum ane ni ñu wa alo dakar ñu ni ma fi ci jamm eh, sama atelier sama tuddu bamba jong de eh, technicien menuiserie aluminium Jadi liggéey ci lépp lu wàllu aluminium de vitré di liggéey menuiserie di liggéey alicobon mi rideau lépp luy wàllum aluminium de vitré dama koy poche papier peint euh, bon def nañ si métier bi loo xam ne duré nañ si li si war a duré xam nañ si war a xam maa ngi jàmm gën euh, marché jàmm gën si euh, tali karo bi avant nga yëg si lycée bi principalement foofu la sama atelier nekk voilà maa ngi kontaan rek si kontaan Aliou Allo Dakar seet si bi ma seet parce que vraiment touché te wan na ma ñoom tamit ñu ngi liggéey te ñu ngi jàppale jeunesse bi bu baax a baax vraiment kontaan nañ trop ci teew waaw jërëjëf kontaan naa baax a baax. sama numéro téléphone 77 675 93 91 beneen bi mu 727 40 35 waaw ku fi bëgg a ñëw tamit doo ma contacter amul problème doo contacter ak Dakar amul problème merci beaucoup kontaan naa.